li ñuy wax c'est parce que nous avons des partenaires bu ñuy wax quatrième pouvoir et aujourd'hui dans la stratégie de Macky Sall quatrième pouvoir boobu dafa nekk di ko museler et je disais à quelqu'un li xew li ñu fi rey ci nit ak nerf yi fi wàcc boo gisee véritablement la presse sénégalaise waxuñu ci parce que Macky Sall est en train d'atteindre ses objectifs par rapport a la presse mooy noppi loo bu ñu demee ba presse étrangère di wax li xew fii di ñu génnee nervi te ñun ñëpp ñu am vidéo yi am ko ci suñuy téléphone presse bi sañu cee wax mais c'est parce que presse boobu yegg nañu ci xoqatal ko kon c'est un devoir pour tout le monde donc ñu ngi leen di woo ci vendredi sans presse bi nga xam ne les associations yi yëngu ci wàllu presse yëpp woote nañu ko vendredi 23 na ñëpp taxaw dooleel presque bu Sénégal ak fu waay mun a féete li wóor mooy ces hommes de médias yi nekk ci kaso yi te Macky Sall jublu ci dara lu muy tiital ñi nga xam ne ñoo nekk dans la presse ces hommes de médias méritent notre soutien et li ñu war mooy taxaw ci seen côté défendre defendre leen à tout moment yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal